ne tey directeur général moo ñu yebal pour ñu ñëw fii moom ci boppam moo bëggoon ñëw parce que ñëwoon na fi ak ministre bi moo bëggoon ñëwaat tey ci tuuru travailleurs yi pour euh, nemmeeku si leen euh, comme DRCO ni mu ko waxee lii dafa nekk li nga xam ne rek Senelec en tant que entreprise citoyenne def koy faral di def dans ci cadre lu ñu naan responsabilité societal bu mu yore ah di ñaan yàlla lu mel ni bañ fi amati di sant yàlla bu baax aussi parce que mënoon na fi gën a grave li am nag def euh, dañ si war a jàngate def suñu war a yee si ay point parce que gis ngeen ne mbir bi bu muy xew xaaju guddi la lii bu xewoon ci bëccëg musiba bi yàlla rek xam fu muy toll ndaxte nit ñi dañuy dund dañuy bouger loolu war na tax ba population yi aussi ak nguur gi di ñu jàppale ci sécuriser yoon yi suñu courant bi di jaar ndaxte courant bi moyenne tension la euh, waaye dëkkuwaay yi dañoo ñëw ba ci moom ba ci suufu fil yi léeg nga dox ci biir dëkk bi sax gis gis naa ko ci yoonu Touba poto làmp ci biir kër te yooyu moom du poto bi moo fekk ci kër gi kër gi moo fekk ci poto yi loolu dañuy sànni eh, appel ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore autorisation de construction yi ñuy war a mën a gën a liggéey ak Senelec pour que fa nga xam ne lii dafa am danger pour askan bi ñu war ko xamal askan bi war ko bañ a permettre aussi muy ñëw di tabax walla di dëkk ci suufu fiir yi parce que danger la et di profiter aussi ci occasion bi pour euh, sant leen ci teey bi ngeen àndal ndaxte c'est sur que li leen dal métti na mais si ni ngeen taxawee si ni ngeen réagiré gis nañ ne ay jullit ngeen ndaxte ab teey ngeen ci àndal loolu ñu ngi leen siy gërëm di gërëm aussi ci tuuru directeur général travailleurs yi travailleurs sénégalais yi ndaxte am na ay réew yi nga xam ne yu mel nii bu amee léeg ay ñaari fan wala fan ak genn wala wala ba ñetti fan la nit ñi di def pour courant bi mun a ñëwaat waaye gis nañu si biir entre trois heures et cinq heures de temps pratiquement réseau bi reprendre nañ ko loolu aussi ñu ngi leen si gërëm. di gërëm taskatu xibaar yi fi nekk aussi e di leen xam nañu liggéey bu rafet bu ñuy def mais di leen ñaax si jàppale ñu si côté sécurité bi parce que cet incident-là aurait pu survenir en plein jour et on compterait euh, les victimes en centaines ou en milliers. Et ça, c'est un problème réel auquel est confronté Sénélec. C'est euh, l'invasion des habitations sur ces tracés léeg-léeg dañuy gis sous à côté des postes ou sous des fils haute tension ou moyenne tension des gens venir s'installer et le risque il est réel ce qui s'est passé dimanche soir peut se passer dans d'autres circonstances. Donc vraiment, je pense que euh, vous avez un travail de conscientisation que vous faites et nous aurions souhaité que dans le cadre de ce travail au quotidien, que vous puissiez vraiment euh, attirer l'attention des populations et des décideurs aussi sur les risques Et face à ce phénomène, la Sénélec, malheureusement, est un peu impuissante. Nous n'arrêtons pas de sensibiliser, nous n'arrêtons pas de tirer sur la sonnette d'alarme, mais les résultats sont là. Parfois, nous avons même des difficultés pour accéder à nos postes. Euh, je donne un exemple. Nous avons eu une panne une nuit, le DG était là avec ses équipes. À 3 heures du matin, pour rétablir l'électricité nos équipes ont dû attendre deux heures de temps parce qu'il y avait un véhicule qui était venu se garer devant notre porte le, devant la porte de, de, de, du poste il fallait d'abord retrouver avec les veilleurs les vigiles le domicile euh, afin à qui appartenait le véhicule ensuite son domicile le réveiller vous voyez pendant ce temps-là ça a pris deux heures de temps pendant ce temps l'usager qu'on aurait pu dépanner en un quart d'heure, en 20 minutes, était sous la chaleur. Donc vraiment, ñu ngi ñu ngi ñu ngi laaj ñu ngi solliciter votre aide, vous journalistes, sur euh, la nécessaire sensibilisation sur cette question. yéen aussi euh, mbokku Cees yi ñu ngi leen di gërëm di continuer di leen baalu et euh, di leen ñaan aussi pour que ngeen mën a nekk suñu relais de communication ci danger yi am ci dëkk wetu ligne de transport yi li ñuy def nag ni euh, ndimbal ba nga xam ne nekkul droit bu ñuy jéem a faj ndaxte faj droit buy am am na yoon yu ñuy jaar lii diggante Senelec ak yéen la parce que Senelec même bu tut bu bu bu nekkul ci situation yu mel nii sax day faral di def yu mel nii même yu bu ko concerné mais tey nag ñun la concerné moo tax mu jaral ñu déplacé wu ñëw ba fii euh, fekk si leen euh, masewu leen coono encore ah euh, li ñuy jox nag c'est c'est symbolique du fajul fajul dara mais symbole bi la rek loolu la amoon li ma leen di wax ci tuuru directeur général Mouhamadou Makhtar Cissé ak tuuru liggéeyukatu Senelec yëpp maa ngi leen di gërëm